di jiital nag suñ nuyoo bi di jiital suñ kilifa yu baax yi nga xam ne tey ñoom la yàlla teg suñu kanam di jiital ci ñooñu suñ wasila bi nga xam ne tey mooy moo fi toogal ma alaaji xibul ay sàll ngay ñaan yàlla yal na ko yàlla may fan ak wér ak tal fekkee ñu ngi yëkkati kàdd goo xam ne dañ ko bëgg a yëkkati incha allahu ci turu raabita bi di leen ñëw yéen ñëpp di leen siyaare di leen balu xaq li waji karim di leen wax ne raabita bi gannaaw bi nga xamee ne sosu na ci ndigalal kilifa yi ñu may ñu ci ndigal ñu sos ko muy dox ak yu xaw a diire yu xaw a yàgg tuuti yoo dëgg yàlla di def ay jéego jéego yu xam solo jéego yooyu it nag li tax ñi man ko ñu ngi ko mënee gannaaw yàlla ci ndigalal kilifa yi ak seen ñaan moo tax ñu man ko ren nag ñu yokk ci liñ daan def beneen jéego boo xam ne bu bees la jéego bu bees boobu mooy tey dañoo góor xool bu xutal suñ maam ju baax ji nga xam ne tey moo sañ ci dëkk bi eh, mooy Alaaji Ibrahima Jaw ñu xutal ko benn kër goo xam ne comme li nga xamee noonu la kër këri diini yi defee yëpp kër gu si nekk xutal nga sa wasila walla ki nga xam ne moo sos dëkk bi maanaam kër goo xam ne mooy dalukaayu gan mooy wàccuwaayu gan ko defee léegi mooy itam ñu wutal ko nag kër goo xam ne incha allahu taala su yàlla doxee ba mu sotti su suñu gan ñëwati ñu am fu ñu leen jaarale kër googu nag moom lañ bëggoon a yëgal mboolem ñi fi teew yëpp ne raabita góor góorlu na incha allahu ren ba jéem naay def ci góor góorlu boppam ba wuutal ki tax ñuy daje fii di siyaare mooy Maala Ibrahima Jaw kërug wàccuwaay boo xam ne pour gan ñi la loolu nag suñ ko amee dañ koy sante kilifa gu mag gi nga xam ne moo sos lii mooy maa alaaji Hibulaay Sàll ndax suñu am ci tiyaabo ji gannaaw yàlla moom moo tax ndax moo waral loolu moo tax su ko defee ñu bokk ci ñu koy ñaanal yàlla yàlla taas ñu si barke bi yokku leera moom waaye ñuy sant it bu baax euh, suñ baay ji mooy Belaaji Moon mi di koy sant bu baax di sant it Belaaji Keeba mi nga xam ne tey biñ ko soxlaa moo ñi wan fi nga ko war a def di ko ci sant bu baax ñuy ñaax nag bu baax di yëg léegi nag ne bunt bi dafa ubbeeku pour ñëpp rek képp koo xam ne yàlla dimbale na la nga am man-man ak pastéef te man ko ci def loo tolloo ak sa doole ñu ngi lay dëkk loxo bi ne ne incha allah bunt bi ubbeeku na loolu mooy li nga xam ne moom la dañ ko fi sànni balaa ñuy jox kenn si turu raabi tamit daal ñu yëg yëgal mbooloo mi yëpp ne bunt bi ubbeeku na incha allah taala lu ci waay am xeebuñ yéemuñ lu ci waay am te man ko nga def ko ci li wajhi laahi karim loolu nag su ko defee Eh, am na su ma benn doomu bàjjan bu nekk sama pegg léegi su ko defee danañ ko jox kàdda moom mu waxe képp koo xam bëgg ngay joxe ana kan moom ngay war a jox ba ma ba raabiti ma man see jot mooy eh, Ibrahima Sall mi sëñ bi kon subaa ñu jox ko na ko rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, kàddu yi du gudd ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati mën naa waraabita bi ñoo wax ma wax sax waaye man lott naa ci lii di jégalu ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog di leen sant bu baax di leen gërëm xam ne ci seen ndigal ci lañuy ñuy lii ci lañuy waxee lii comme ni ko mbokk mi waxee mi Abdallah moom mooy président bi sax président rabita bi képp koo xam ne yaa ngi fii ci midina Koungheul boo bëggee dugal sa xalaat wala sa doole wala sa dërëm ci liggéey boobu moom Abdallah boo ko gisee wala ku ñuy wax Mor Sarr wala Mamoud nga xam ne mooy mag yi gune yi loo leen jox ci kàttanu yàlla dana yegg ci raabita bi raabita bi nag yemul Medina rek boo demee fu mel Dimishqa am nañ fa benn banqaas bànqaas boobu tamit eh, eh, ka ñu fa toogal ci ñi na ci ñi fa toogal muy Mbay Sàll képp ak Mbay Sàll ak eh, sëñ Modou Fadi ku am looy def ci liggéey bobu boko jaarale fofu ci carte yàlla dina yegg dëkk bu mel ni Médina euh bokku na ci kiñu fa togal muy euh Ahmadou Sall euh momit moñu fa togal momit ku tek dara ci loxom wala ku ñuy wax babu Safi ci carte yàlla dina yegg si bu dee fële lañ ma nek muy Dakar euh momit man mi di Ibrahima Sall kep ko xamne yàlla dogal nga tek dara ci loxo bi wala bok ku ñuy wax Hamidou Sall wala sherif Sall. yàlla dana dogal euh, di si jot ci kàttanu yàlla. am na ñeneen ñoo xamante ni si nag ci dëkk bi lañ dëkk nekk doomi dëkk bi nekk bitim réew ñeneen ñi nekk feneen lii ñuy wax ci kàttanu yàlla danañ ko dugal foo xam ne ñoom ñooñu danañ si mën a jot. ñoom ñooñu képp koo xam ne bëgg nañ dugal sa sa ñàq ñoom xam nañ dañu war a jaar muy ñoom bi ay ñoom ab Ablaye Amir ñoom ñooñu ñëpp ndaw ñooñu ñëpp ci kàttanu yàlla. ci euh, tënk daal loolu lañ bëggoon a sànni ci ay kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatulah bu baax. Ibrahima Diaw. muy sunu waajur di xalifa alaaji moon na fi ci li ñu jëlee kàddu yi di ko yëkkati ci jottali loo xam ne ay kàddu la yoo xam ne dañuy wax lenn rek ci góor gi nga xamante ne waliyu yàlla bu mag la woon nga xam ne moo waral sunu daje tay fii di sunu maam di koo xam ne doo ko tënk ci moo jur diw waaye de la koo xamante ne ni ma juree ñii ci deret noonu la juree ñu bëree bëree bari bëri ci ruuxu muy alaaji Ibrahima Jaw radiyallahu taala anhu ñu koy commencé mooy maam Ibrahima Jaw moomu mooy kan ci wàllu mu sosoo wala ñu ko meññ maam Ibrahima Jaw radiyallahu anhu ay waajuram mën nga ne ay waajur yu sell lañ ñoom it nekkoon ay nitu yàlla yoo xam ne ay ballookaay yu leer la woon ba soxna sa nga xamante ne moo ko meññ sax daan am firaasa yoo xamante ne daan na ko feeñal pour ñi xam ne su daañu ci ñëw suñu ko waxee dañu xam ne kooku sax momit ndeke kamal la woon waaye juróomu góor mu ngi tuddoon mahmoud gëna a ci maamu sambu maram maamu sambu maram bobu wa jurom mu ngi tuddoon set hanta ndaba don ndaba wa juróom mu biran maram biran maram wa juróom mu ngi tuddoon salum eh, xadi bay salum xadi bay nekkon dom ci sunu maam bu ñuy wax maam ma sàll nga xam ne moom lañuy wax ne sax moo kii njëkka di làkk wolof ndax ka ko meññ moom tukulóor la woon bu bàyyi ko woon fuuta ca Gédé ñu ko daan wax Omar Xaalit ci li banna maam Ibrahima Diop boobu kañ la gane àdduna dañuy wax ne ci gane àddunaam am na iltiraab ndax am na ay wuute comme ni ni ñu ko xamee ci taarix te lii wax ne taarix mooy ixtilaaf am na ñu jàpp ne mu ngi gane àdduna 1839 am na ñu jàpp ne mu ngi gane àdduna 1845 ñu jàpp ne bu njëkk bi moo gën a lëng te moo gën a wér mu ngi génn àdduna 1938 mel ni date boobu moom amul weerante 1938 la wàcc liggéey radiyallahu anhu googu nag ci dundam gu gudd googu soo koy xool ci ati jamono dund gu fees dell la ak liggéey ci yàlla ci jàng ak ci jàngale ak ci defar ak ci defare ci loolu sanc na ay béréb yu bari te li ko waraloon mooy fu mu tuure aw ñaqam ak fu mu jaamoo yàlla ci tundu wi birab yepp nek birab yu ñu xam bokk ci birab ba nga xamantene mom la njëkk a sanci tuddee ko madinatul munawwara mu nek fele ci saña te moy guja guja fam fa dekkon ak dekk ba ñu wax guja du ben dañu dend rek diggante guja gi nga xamantene moy ñiko dalalon ak dekkam ba nga xam ne fa la dalon lu mu néew ne war na mat ben kilomètre bu tegal tuuti madinatul munawwara la ko tudde woon foofu la sampee kër moom maam Ibrahima Diaw gannaaw gi jaar na fi ñuy wax Ngajaga daloon fa gannaaw gi mu bàyyi fa daal di ñëw fi nga xamante ne mooy Sall Diaw mu nekk dëkk boo xamante ne magam moo ko doon sanc waaye moom moom mottali di sanc ga mu euh, nekk ci pegg Touba beneen mais bokk na Touba Touba ku ñu wax Mor Mati moo ko sanc doomi mati ndongo mu bàyyee foofu daal di sanc Taïba Taïba mu ngi ci Gambie ci frontière ak Sénégal fu jege Sénégal lool Taïba googu sax yaa maam Jaw Gay mi nga xamante ne mooy waajuram mi ko meññi foofu la tëdd ñuy wax sax ne moom fa nekkeek moom mos na ko wax bés ne ko Ibrahima mu ne ko ah mu ne ko man dee fii laa di tëdd ki nga xam ne moo ma fi war a wettile bu ëllëgee ñëwagut te booba mu ngi ci jublu woon maam Serigne Por booba maam Serigne Por ñëwagul woon Taïba maam boobu nag moo njëkkoon a nekk wasila ak sëriñu maam Ibrahima Diaw ci yoon wi nga xamante ne mooy yoonu Tiijaan wi nga xamante ne moom la jàppoon mu ngi ko ja mu ko njëkk a jàppee ci maam Serigne Por boobu maam Serigne Por boobu moom itam mu ngi jokkoon ci góor bu ñuy wax. Cerno Aliyu Den Njaay Kunda Njaay Kunda mu nga fee gannaaw kër ma jabel Cerno Aliyu Den boobu Cerno ma Jàllo bu subbil dem mu nekkoon wasilaam Cerno Amadou Yoro nekkoon wasilaam mu nekkoon silsila boo xamante ne day dellu ci Muhammadul Haafis al Alawi Tijaani jaar ci euh, euh, professeur boobu ñu daan wax ci euh, Mawlud Fall Mawlud Fall kenn la ci ñi nga xamante ne ñoo wisaare tarixa bi ci réew mi sabab ba mooy dafa doon dem mag te booba Saint-Louis moo nekkoon capitale la woyof mu jëlee fa bato pour dem Makka passant par Soudan et Égypte fépp fu mu jaar ay kàngam jàppee woon nañ ci tarixa tarixa bi ci moom ñooñu bokk na ci Amadou Yoro bi nga xamante ne moo nekkoon Cerno Wasila Cerno mu mu Jàll bi nga xamante ne Ibrahima Jàll bi nga xamante ne moo nekkoon ca euh, sëriñu Cerno Aliou Dem bi nga xamante ne moo nekkoon sëriñu maam sëriñ Por kon maam jàpp na tarixa tijaan di ci liggéey ba am ci ay cër yu bëree bëree bëri xàgg ci fu kawe kawe fekk booba génnagul réew mi ci ñaari tukki mi yooyu nga xamante ni yu siiw la te mooy ñaari yooni màkkaam yi bi mu njëkkee jog ne dafay aji yoon woowu àggul dañu wax ne dafa dem ba fi ñuy wax Port Lami Port Lami mooy actuelle Tchad foofu la ñu ko refoulé ci histoire boo xamante ne bu xaw gudd la xanaa dañ koy tënk rek brièvement te moo di ne dafa amoon altercation digganteem ak ñoo xamante ne ay malfaiteurs la ñu ko bëggoon a agressé ne fekk boobu moom amoon na benn arme muy benn fetal mu génne ko olimi leen mais fetalu leen bi coow li demee ba àgg ci kët buur ne laaj nañ ko laaj leen ñoom ñi ne moom góor gi moo leen bëggoon a rey góor gi ne déet ñoom ñoo bëggoon a àddu kalpe góor gi mais ñu attee leen ne yéen li góor gi wax moo gën a yenu maana li ngeen wax ndax kenn nit munu la wala waru la tooñ mbooloo waaye góor gi nag li nga xam ne moom lañ ko collé comme motif moo di moom dafa yore arme boo xamante ne amul permis de port d'arme sabab soosu ci lañu ko refoulé ba muy dem jàpp nañ ne mu ngi déparé woon bi waaye ba muy wàññeeku ñi ngi ko wàccee port Dakar ba mu wàccee port Dakar fekk na fa genn góor goo xam ne dañu wax ne Mam serigne por ñu ko wax mam jibel beng dañ wax ne mam jibel mam mom sax am lu man ñeen fukki at ci loxo mam serigne por mam serigne mam jibel mam bobu ci mom la wacc mom moko delo ci ci tukki momu bam ko defé ci la fi delu waajee wat gannaaw ñu ne gannaaw ñu ne gannaaw ñaari at jëluwaat ci aj goo xamante aju dox lañ ko daan wax ndax aj googu da nga daan boolante dox ak dugg bato ci la demee yoonu ñaareel bi nga xamante ne ci la ajee ajam nga am na sax ci ñenn ñi nga xamante ne nettal nañ ko ne ba mu wàññee ko jaar na baytul maqdis loolu wér na walla wérut waaye wala ku leal ba mu ba mu wàññee ci la jaaroon faas ci siyaareem boobu nga xamante ne ci la doon siyaare seex te tasee fa ak wàllu yàlla woo nga xam ne moom la ñu tuddee Ahmad Sukayri ja ba moom mu defal ko nijaasatu tajdid ci xissa boo xamante ne bu gudd la ñu bëri xam nañu ko. maanaam bi muy aji la nekkoon wala bi muy aj ajam gu njëkk gi. booba nekkul woon Medina. waaw. mais aj ak ñaareel gi. waaw dafa dem ay dafa dem màkk ñaari yoon. benn benn ba àggul woon. waaw boobu dañu wax ne dañu ko refoulé. depuis Koor Lami mooy fi nga xamante ne moom mooy actuel Tchad bi léegi. Ah, hmm. <laughs> waaw mu ngoog <laughs> ñoom ñoo ko doon agressé ne mu ngoog léegi nag arme waaw mu ngoog <laughs>

aj googu mooy aj nga xamante ne moom la yàlla dogal ci la ajee ajam nga nga xamante ne mu tudd euh, lu bari xew na ca waaye it amee na ci lu bari ndax ci la wàññeekoo jaar faas foofu la jëlee lijaasa bi nga xamante ne mooy lijaasa bi nga xam ne moom la mujj di joxe nga xamante ne mu ngi ko jëlee ci Ahmad Sukayri ja te Ahmad Sukayri ja bi ñu ko koy bindal daf ko wax ne ko Sidna Seex moo ma wax ne yow yaa ngi bokk ci ay xulafaa waxu ko ne ne yaa ngi xisa ba dama ko tënk romb ci lu bëri mhm. waaye daf ko laajoon ndax moom taqdimam wér na loolu la ko ma maam laajoon mu xamal ko ne comme man yàlla may na ma dinaa di gis ak sidna seex dinaa la ko ko laajal ba mu ko mayee la tànk mu laajal ko ko ba mu bañ gisee waatoo xamal na ko ne ko seex daf ma wax ne yow yaa ngi bokk ci ay xulafaa u wan maam ma Joon min xulafaa i seex radiyallahu anhu ci la ko bindal lijaasa ba nga xamante ne moom la ko defal mu ne ko dama lay defal li nga xam ne mu la ñu ko wax lijaasatu lijaasa tajdiid nga xam ne mooy bi ñu doon tudd léegi ahmadu abdullah bi ahmad sukeri abdullah bi alaaji ali tamasini sidna seex alaaji ali tamasini boobu nga xam ne sidna seex def na ko xalifa min xulafa yi te fekk booba moom mu ngi dund bi nga xamee ne sidna seex itam dem na ba war a génn àdduna woo na ko moom alaaji ali moom ak ki nga xamante ne mën nañ tuddee Mahmoud at-Tunisi radiyallahu anhuma ne dama leen soxla kaay leen way si ma bi ñu ñëwee way si ko mu xamal leen ne moom mu ngi ci waajtaay te li nga xamante ne mooy xilaafaam dafay bàyyi ko ci kuy dund dem ci kuy dund te yéen ñaar ñii ci kenn la ci war a tuxu alaaj ali tamasini radiyallahu ku jeexoon ci Seydina Seex moom dafa àgg suuf daanu pour wane ne moom àttanut yan boobu Seydina Seex xamal ko ne ko xadra ba ne bu kenn yow mii lay doon mu leen waaye na ngeen ma may ngeen génn dëkk bi yéen ñaar bu leen fekkee bu may fàddu su ngeen ko fekkee da ngeen ko du ngeen jëriñu noonu lañu ñu génne faas abal ko ba yàlla dogal li muy dogal ba noppi ñu soog a dellu si waat ala jaar yi tamasin boobu seex def na ko xalifaam yàlla def na ko xalifa seex seex it moom la dénkoon njabootam ne ko suma faato nga jël njaboot rawal len nga dem ak ñom ñom mom mo len jëlee fofu yobu len sahara mom itam ma dañ koy gattal waye xista bobu lu bare bare bare bare xewna ci ndax mo juron ñi dañ ton naa sax ba nopi delu ko wat ndax ba nga xamé ne dañu bëgg dem dañ ko sulliwaatoon ñom njabotam nëbb ko la cey karama moy seen sax waxon nit ñi ne mom bu génné aduna Mouhamadou Xaali moo koy moo koy julle te bi mu génnee àdduna dafa fekk Mouhamadou Xaali nekk fa woon boobu mu ngi mag waaye ki ñu wax Mouhamad Dakkaali moo ko jullee woon ba ñu ko robee juróom benn weer gannaaw gi ci la xew-xew ba am ñu sulli ko yàlla dogal ba ñu balaa ñu ko delloowaat di ko suulaat te dañu wax ne ci fiq bu ñu sullee ne war ko suulaat dañ koy jullewaat bi ñu koy jullee ñaareel ba ñaareel yoon bi ki nga xam ne moom la waxoon moom Seydina sax ne moo ko war a jullee kooku mooy Muhammadul Xaali fekk na ko mu bàyyeekoo ci tukki ma ba ñëpp si moo ko jullee yoonu ñaareel bi ñu koy bi ñu koy jëbal boromam. góor googu di maam Ibrahima Diaw ci dellusee amoon foofa nga xamante ne moom lañ doon wax loo te tudd ci lu lu gàtt loolu. lu mel noonu la wuti woon te yàlla dogal na lam wuti woon yàlla jox na ko ci lu kawe njortum mm-hmm. te loolu misaal maa ngi nii mu nekkoon koo xamante ne dafa daan nëbb boppam lool dëgg naa sax mos na wax benn ci mag ñu ne ko kaay ñi dem mu jël xandaari dugub ñu ànd nañu dem ba ci béréb mu daal ne ko gasal fii mu gas mu jël àndaar ja sotti ci ba mu tuuti mu ne ko suulal mu suul mu ne mu jël la nga xam ne moo ci desoon daal di koy sotti ca kaw ne ko nañ ñibbi ñu xaar bu ci ëllëg sa mu ne ko nañ dem seeti suñ denc ba ba ñëwee la nga xam ne moom lañ fekkoon ñu sotti ko ci kaw fekk nañ ay picc for ba dara nekkatu fa mu ne ko sullil mu daal di wàqi la nga xamante ne moom lañ suuloon di wàqi di wàqi di wàqi ba loola génn mu ne ko kereej na de waaye mu ngi fi mu ne ko kereej kereej na de waaye mu ngi fi maanaam lañ suuloon mu ne ko kereej na de waaye mu ngi fi moom nag noonu la gisee woon mbiram moo tax daf daan aaya sax ay njabootam yëngatu te loolu mooy xaalu xadra bi mooy xaalu pays bi nga xamante ne mooy pays yu maam Ibrahima jaw yëngatuwuñu waaye li tey ñu yëngatu moom moo ko santaane woon waaw ñu bari ci kilifa yi ba ñu jógee ba bëgg a yëngatu ña fekkee te xam wax nañ leen wax nañ leen ne borom pays bi borom xadra bi dafa daan xaayi yëngatu te fekk lam taxoon mu di ko xaayee rek xëy na duur yëngatu bu Euh, bu ne waa yëngatu boo xamante ne dafay jur yàqu ak la nga yor tuuru loola moo taxoon mu doon ay yëngatu loolu nag ci la nekkoon ci diggante jàngale lu bari la ci def danañu laaj fu mu jàngee jàngee na ko bari xëy na biñ ciy gën di cité rek mooy jàngee bu mu jàngee ci maam Mor Anta mais bi muy jàngee ci maam Mor Anta Sali dafa demoon jàngi ngir barkeelu te loolu li ko waral mooy Mamadou Bamba sàll moo def ko defoon tan wi ne ko seen mbokk mi de jëlee na fi barke topp leen ko mag ñu bëri ci ñu ko demoon topp ba ñuy del dem ca moom fekk na booba ñu jàngoon ba noppi mais dañu fa demoon ngir barkelu moom bokk na ci li nga xam ne def na ko fa sax ca lappe ngir sàkku barke ten bu lappe ne nañu dëy na ba ñu ko bëggee wax ñuy werante ku ne nangu caa dugg maam Ibrahima Diaw moom lañ takk yoor ko ca seen teen boobu moom moo dugg ca teen ba wàqi ko te loolu yëpp ba mu koy def daf ko doon def ngir wut barke jàngee na ndar loolu ci waaye yi nga xamante ne wér na la ci la bokk waaw ndar jàngee na ba xawma ci yan sëriñ la woon waaye jàngee na ndar naka noonu tam ñëpp sayit ci jàngale ci la jeexal dundam gi yëpp ci digganteem ak ñi nga xamante ne ñooy ñi mu yaroon ci njabootam ak ñi nga xamante ne ñoom la yaroon ci njabootu ruuf ñooñu la doon teel ci daara ji ci jàng ak jàngale ba nga xam ne njabootu boppam mun nga ne ñëpp ci daaram la ñu jàngee xanaa ku ci mottalee ji béréb waaye ñëpp ci daaram lañu jàngee ba ñu ci bëri sax ci kër gi la ñu mokkale alxuraan donte la ci ñeneen la leen méngale woon nga xam ne ñoo féete woon doon leen téyel ci li nga xamante ne mooy méngo jàngale pratiquement la waaye ci li nga xam ne mooy euh, tarbiya ci ruuxu ci ñi nga xamante ne ñoom la yar ci ruuxu def def nañ ay muqadam lim bu baree baree baree baree bari la ci réew mi ba kenn ci mag ñooñu sax euh, daan na wax ne maam su ëllëgee su fekkee yow yaay xàndaar kenn du mëkkale mu nga wax kooku moom nijaay la ko daan wax sax muy góor gi alaaj Aliou Fatou bu jaamal daan na wax ne ko ndax moom lijaasa mu njëkk ci góor gi la ko jëlee woon moo ko daan wax ne nijaay su fekkee nga xamante ne ëllëg yow yaay àndaat kenn du ma kële ak góor googu di mu meloon kon suñu yemoon foofu rek doy na ndax buñ ne diw am na xam-xam dañuy laaj ndax borom xam-xam yaa ko wax mhm. te li ma la wax nii ne ki ko wax ki ko wax moom mën nga ne daanaka réew mi moo ko tabax ci jàng ak jàngale ci loolu itam ci la waxee rek ne béréb yu bari jaar na fa la ko fa yóbbu woon mooy fu mu tuuree ñaqam ndax bi mu bàyyi ko tuubaa dañu wax ne kër Màkka ci boppam la daloon dëkk bi nga xam ne moo den ak Taïba ñu Màkkam ak histoire boo xamante ne bu banaan la bu mu woon ak borom dëkk ba aayul woon sax waaye mbiru xaj la woon rek mu indi woon réeroo ba tax ci digg nawet la wàcc foofa ci nga xam ne mooy ba commencé gor ba am ñu borom mu yóbbante leen ci ay bokkam ne nañ ñoo gorale ko loolu mooy sababu gor euh, sanc ci dëkkam boobu nga xamante ne moom la ñuy wax Tayba nga déggal ci ne Tayba mooy Medina kon moom dëkk yi mu ci yëpp Madina la leen tuddee xanaa ay numaa di nga xamante ne dëkku sëriñam la ko tuddee Tayba googu li tax mu jóge ko fa mooy sëriñam moom moo ñoo fekk si ko muy ak histoire boo xamante ne bu gudd la exilé ko yëpp xajul fii moo tax bi mu ko fekk see mu ne ko ne abu ayuba al ansaari yu defaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa lay defal yëkkati këram jox ko mottali nawet ci dëkkandoo ba nawet wàccee mu jàll dem fi nga xamante ne mooy biir Gàmbi ci gannaaw Jalakounda sanc fa dëkk tuddee ko Aynu Maadi Aynu Maadi boobu ka mu demoon a wante loolu mu yilif suuf boobu kooku moom lañ daan wax Sidi Ndiaye Dokke. voilà Dokke. xam nga. maam Sall Diaw. Mhm. Sall Diaw bi nekk fii ci. Touba Benayri. waaw. mu ne maam Sall Diaw bi nekk fii ci Touba Benayri. ba yàlla dogal teel ba moo doon sanc dëkk bi ñuy wax maam moo doon dëkk bi ñuy wax Sall Diaw la doon sanc yàlla def teen ba jotu doon mu àgg. mu faatu. mu faatu. dégg naa ne maam Ibrahima ba muy dem di xàggali ji teenam magam boobu. la wax yaayam na ko maa ngi dem seeti sa liggéey ba. la wax yaayam na ko maa ngi dem seeti sa liggéey ba. yaayam na ko demal teen ba dana dana bëri ndox. yaayam na ko demal teen ba dana bënd dana bëri ndox. foofu am na fa ay mu nee na am na fa ay xat. man sama papa nee na ci gent boobu moom foofu la gën a àdduna. Euh, nee na baayam Cheikh sedd Hadji Habib nee na ci gent boobu la gën a àdduna. am na fa ñaari at. xam na fa ñaari at. bi maam di toxoo foofu di dem sanc xëynu maadi. bi maam Ibrahima di toxoo foofu di dem di sanc xëynu maadi. booba dañoo tunq moom Cheikh Seydil Hadji Habib. booba mu ngi toll ci ñaari at. mu ne waaye ala kulli haal maam Ibrahima. dikkee fa waccoon gentam maam Sall ba def genta boppam. ba mu dikkee daa waccoon genta maam Sall ba def genta boppam. waaye teen bi moom benn bi la. waaye teen bi moom benn bi la. teen ba bënn ba bënn moom ba pare mu mu dal nag ci boor ba di di teen bi. la xàggale ba pare dalee dal ca boor bële nag di root si ci teen bi. gent maam Sall nga ne rek gent maam Ibrahima. boo fa demee ci dëkk booba ñaari gentam fa gentam maam Sall Jaw ak gentam maam Ibrahima Jaw. dikkee ba dal fa ba neer ba neer wàcc. ba dikkee ba dal fa neer fa ba neer wàcc. na soxnaam fi nga xam ne moo way juru suñu bàyyi ko sax gi de bu def gi nii ba ko xool a da ko def da ci yoonu rab yi. am soxnaam soo xam ne mooy way juru. mooy maam Gaddawa moom mooy maam Gaddawa di way juru jigéenu Cheikh Seydi Hadji bi mu ne ko sëriñ bi de sa kër gi fi nga ko def da ko war a toxal ndax da ko def ci yoonu rab yi. soo ko toxalul daan moom mu daal di toxal kër ga. soo soo ko toxalul. mu tax maam Ibrahima toxal maam Ibrahima toxal kër ga. ba mu ca tegee ab diir mu ne ko daal bi da nga ko ba mu toogee ab diir soxna si dellu ko waxaat ne ko fii daal soo fekkee ba ngaa gudd fan da nga toxoo fii. rab yi nekk ci dëkk bii duñu rab yi jullit. loolu tax na maam boobu moo taxoon maam Ibrahima dellu toxoo waatu ci dëkk boobu. dem dem sëñ ci xëynu maadi bàyyi nee na moom foofu la yaroo Cheikh Seydi Hadji Habib nee na moom foofu la yaroo foofa la dalee jàng itam maam maam dëkk na fa fukki at ak dëkk boobu am na fa fukki ak juróom-benn muy xëynu maadi gannaaw gi la doon toxoo dikk sanc si gannaaw gi la toxoo xëynu maadi ñëw sanc Madina gii fa lillahi alhamdu wa shukr yàlla na yàlla fayal ñu ko mu yal na yàlla nangu ko yal na ko yàlla gërëm bàyyi Modou Rabi sëriñ bi yal na yàlla guddal sa fan yokkal la lijaaba ak xabool bi sallallahu alayhi wa ci xam baax na ku mu ne Modou Rabi ku ko ci xam baax na ku ko ci xamul mooy doomi ma alaaji Mansour. demee ci xabru moom lañ bokk def ci kanam maam Ibrahima. boo mu ne ma ma alaaji Mansour moom lañ def ci kanam maam Ibrahima jaw ci xabru bi fii doomu maam Ibrahima Diaw la. xam naa su fekkee du mooy mu ne xam naa su fekkee du mooy caatu maam Ibrahima Diaw itam. ci ñi gënoon a féete ndaw ci la bokk. mu ne mooy caatu. Ah, ñu ne mooy caatu maa Ibrahima a alhamdulilah waaye ku amoon may la. waaye mu ne alhamdulilah waaye ku amoon may la. ku yàlla baaxee woon la. Eh, yal na yàlla tax ci barkeem. yal na yàlla tax ci barkeem. daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ni kon ñu ngi wax mbooloo mi rek ne alhamdulilah rabbil alamin liggéey bi pare na. doon ñaan yàlla ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi doon ñaan yàlla tàmbale liggéey bi ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ko ñaanoon defal nañu ko mel na ni liñ ko ñaanoon defal nañu ko ñaanoon nañu it mu nangul ñu ñaan nañ itam mu nangul ñu nangu itam yaakaar na ko yaakaar na nangu na loolu ndax sallallahu alayhi wa sallam daf ne su ngeen ñaanee yàlla xóolu leen ne xóolu leen ne nangul na leen yalla heres na jaamam talal loxo yalla heres na jaamam talal ko loxo nako ya rabbi nako ya rabbi mu wacce loxo la mu gel mu wacce loxo la mu gel mu neen du ko def mukk neena sun borom du def lool mukk dana la jox li nga ñaan dana la jox li nga ñaan ma mu jox la lo gën li nga doon ñaan wala mu jox la lu gën la nga doon ñaan wala mu fankal la lo jëm ci won ci yow te yegulu ko ci barkem ñaan wala mu fankal la lor gu jëm ci won ci yow ci dara jaay ñaan gi te yow fek yegulu ko te fek yow yegulu hon lolu moo tax ñaan du neen mukk kon nañ di bëril ñaan ne ñaan yàlla te wóolu ne yàlla nangul nañu ñaan ga incha allahu ñaan gi yàlla nangul nañu ko ñu mu ngi ñaan itam képp ku fi dikkee bàkkaar yàlla suñu borom sippi bàkkaar yooyu ku fi képp ku fi dikkee xaajo yàlla na yàlla faj xaajo jàngoro yal na ko yàlla saafara ku fi dikkee jàngoro yal na ko yàlla saafara ku fi ñàkk yal na yàlla na yàlla hubbil la buntu xewal ak bunti warsak yàlla may leen way sàkku xalal yi na yàlla may leen xalal may leen xalal yu barkeel xalal ju barkel xalal ju barkeel nekkul ci bëri ga nekkul ci tuuti ga nekkul ci bëri ga nekkul ci tuuti ga borom ko jàll bu ko delloo ko yàlla toppee ko yàlla xalal ju barkel mooy ba gannaaw boo ko ba pare nga del jàllal bu ko toppee ko yàlla ba xam ci ngërëmal yàlla. yal na yàlla defal ñu loolu. nawet bi. nawet bi. liñ ci xam. liñ ci xam. yal na barke. su baree it nañ ko muudoo. su yàlla nañ ko muudoo. Eh, waa dëkk bi xale yi seen taxawaay rafetlu nañ ko lool. waa dëkk bi xale yi seen taxawaay. surtout rabita bii ñu tàmbali. Ah. yalla yalla duggal ci ndimbalam yalla yalla duggal ci ndimbalam ba ma ne ni ngeen ko beugé wala mu kawé seen beug beug bam hag ni ngeen ko beugé wala mu kawé sun beug beug te yalla def xol ñi hand bëggante ngir yalla soppante ngir yalla dimbalante ngir yalla yalla yalla tapé xol yalla yalla tapé xol yi yalla nañ bëggante ngir yalla yalla nañ soppante ngir yalla yalla nañ di dimbalante ngir yalla nga xam ne ñoom la yàlla jox kàttan ñu nga xam ne ñoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox kàttan yal na yàlla xiir leen ñu yërëm ñi ñi leen féete suuf. boo yërëmee ki la féete suuf ki féete kaw yërëm la. boo yërëmee ki la suuf ki la féete kaw la. boo dimbalee yàlla ci xaajoy jaam yi yàlla fajal la sa aajo. boo dimbalee yàlla ci xaajoy jaam yi fajal la sa xaajo yi itam. joxe fi. dërëm yi ngeen joxe fi. ak paas yi ngeen paasee ba dikk fi. ak paas yi ñu paasee ba dikk fii. yal na yàlla xuutalal leen ko lu ko lu ko ëpp. yal na yàlla xuutalal leen ñu ko lu ko ëpp. yal na yàlla xubbi buntu xewale ak buntu wërsëg yi. yal na yàlla xubbi buntu xewale ak buntu wërsëg yi. wa suñu way juri tedd yal na yàlla fayal ñu leen. yar leen yarab lislaam. ndax gune yi ñoo war a xuutu mag ñi. ndax gune yi ñoo war a xuutu mag ñi ëllëg. lii ñu fiy def nii maanaam nga xam ne ñu ko def ci mel ni nit def nañ fi dara te mag yàlla mag lii ñu def fi mu mel ni def nañ fi dara yàlla ak mag ñi la de. kon ñun itam nañ ñaanal gune yi te yaa ña leen ñu ñoom itam boo ëllëgee ñu mën a utu suñu tànk yi. kon nañ ñaanal gune yi te teg leen ci yoon xiir leen boo ëllëgee ñu man a utu tànk yii. nit du bëgg lu mu nit du bëgg lu de. nañ leen ko xamal. nañ leen ko xamal. buñ leen xamalee bu ñu leen xamalee alquran. xamal leen yar ak teggiin. xamal leen yar ak teggiin. xamal leen seen diina. xamal leen seen diina. xiir leen ci. xiir leen ci. dañ ko bëgg. dañ ko bëgg. dañ ko topp. dañ ko topp. boole koog nag suñ ku ci wéet nga ngëb sukkandu ñaan. boole ko ku ci wéet na ngëb sa kurus ñaan. ñaanal sa njaboot. ñaanal sa njaboot. ndax yàlla jubal leen. ndax yàlla jubal leen. ndax yàlla teg leen ci siraatal mustaqim. ndax yàlla teg leen ci siraatal mustaqim. bu yàlla nangoo ñaan. bu na bu yàlla nangoo ñaan. ku ci dëng hit. ku ci dëng hit. ñaan nga dana ko wëlbati ñaan mu jaar ci yoonu njub. yàlla na yàlla boole ñu dimbale. yàlla seen lijaaba. mag ñi yàlla yokk seen lijaaba. lii de alhamdulilah sedd na lii de alhamdulilah rabbil alamin sedd na xol. biñ fi dajee ci suba ak léegi liñ fi jàng ci ay kaamil. biñ fi dajee ci suba ak liñ fi jàng ci ay kaamil. wirde ko ci ay salaatul ay istixfaar ak faatihi. ak i ci ci ci lépp ci yàlla la ak barke mag ñi. waaw ñun itam nag ñun doom yi yal na yàlla xiir leen ñu yàlla xiir leen ci ñu dégg nangoo dégg ndigal ak. Euh, nangoo topp. noppi dégg ndigal ak at na noppi dégg ndigal. noppi dégg ndigal. ak na topp. bopp bu ci barke naree wàcc. bopp bu ci barke naree wàcc. nopp yuy dégg ndigal moo caay sax. da nga dégg ndigalu yàlla topp ko. da ndigalal yàlla topp ko. dégg ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp ko. dégg ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp say kilifa topp ko. ndigali kilifa topp ko. ñu gërëm la. ñu la. ñaanal la barke. doom seen bàyyi. mu ne doom yi nañ topp seen bàyyi. nañ doom yi nañ topp seen ndigali bàyyi. nañ topp seen ndigal sàkku seen ngërëm. sàkku seen ngërëm. ku xam sa ngërëmal bàyyi. danga xam sutura ci àddina am sutura danga ku sa yaay gërëm nga dem àjjana ku sa nee na àjjana mu ngi ci ron ndëggul kilifa lu mat a de mu ne ku xamut kilifa saytaane mooy doon sa kilifa ku xamne nekul ak sa wayjur jur ku xam ne ak sa wayjur jur nga ak sa mak nga nek ak sa mak hormal ko hormal ko ngay xànd ak moom ngeen mag ñi guni guni yi nangoo kilifa yi mag ñi guni guni yi nangoo kilifa yi baax na jo yàlla xam fa yàlla yàlla fay leen kenn ku ne bëgg bëgg xolam ak ko defal kenn ku ne bëgg bëgg xolam ak mébatam yalla nako ko yalla defal bi jaahi rasulullah niñ fi dajé ren yalla nañ ko fi dajé dewen bu ñu demee ca Mawlaaya booba gis moo am mu wér na suñu te gamu war na moo ñu doy seexay ah, ca Mawlaaya moo la ndaw waaye waaye soo gisee ku am aajo mbaa mu tiit ba waaye waaye jaaxle ba farjaajo mbaa laaj la kuy waajal ma feral yow mi soo bañee say mbir tar de ka ñu dem ca suñu waaja ti jaanano gaaya bu ñu demee ca mawlaaya oo fa gis mu amraaya cheikh tax mu dag waaw soo xamee ba waayoo ko nga gëm seex doy loo ko mbaa seex nga daayoo ko lañ wax ne yaay waaja waay waay doo ko laaj mu naan xaama doo ñaan Seex mu na laama am na gën ji maqaama ku mu defel nga doon waaja ci kaw dun bi ku mu ci fal nga doon waaja ci loo ci jaan raw gaaya bu ñu demee ca mawlaaya يا شيخ محمود والمودي قطب المكتوم بي مودي فايدو سمدان بي مودي ختم خزمان ويكم غيرم غادو واجا شيخ تيجان روكا cheikh bu ñu demee ca mawlaay boo fa gis muhamraay cheikha tax mu dal waaw waaw soo ne cheikh mu naan maa ngi ana loo soxla cër yaa ngi maa la ko warulul naataange gaay nan la yaay ba ñu demee ca mawlaay seexaata xamuudo waay waay kay ma wax la njool fuuta soo ko fal ca biir fuuta waay waay ak feneen fuudul fuuta fu mu fii dem muy mat waaja Seex Tijaan raw gaaya ba ñu demee ca Mawlaaya waay waay Moodu xaali ko mu noonu booti Seex yaa mel noonu waay waay ku mu dee fer du am coono dañ leen wax ne yaay waaja Seex Tijaan raw gaaya bu ñu demee ca Mawlaaya moo doon gën moo xam waaw waaw maam Ibrahima ko mu noonu mbooti sëñ ya mel noonu ku mu dee fer du am coono dañ koy wax ne ay waaja Cheikh Tidiane raw gaaya ba ñu demee ca Mawlaaya amaraay a seexa ga xamudo waay waay maam xabibu kamu noonu mbooti seexa melu noonu waay waay ku mu defer doo am coono dañ lay wax ne yaay waaja seexa tijaan raw gaaya ba ñu demee ca mawlaaya loolu yàlla baax na ceexaataxa moo doon waaw waaw yàlla baax na comme noonu boo tiisee yaa mel noonu waaye waaye ku mu dee fer doo coono dañ lay wax ne yaay waaja Seex Tijaan raw gaaya bu ñu demee ca Mawlaaya mu xamuraaya seexaata xamul waay waaw def na mboo ci doomam yi sol na leer ci dongo waay waay def na xaar ci waayam yi waaji sëñ bi mooy waaja Seexu Tijaan raw gaaya ba ñu demee ca Mawlaaya boo fa gis mu xamuraaya seexaata xamul def leen ni ci Seex na Mat Tijaan sama sang ba kenn ci ndongoom yi lañ fi tëkkale kenn yi. te bañ na dendale. te bañ na dendale noflaayal ci seeti kemam. waaw wolof nee na diw nangu na tëkkale waay nangu dendale. wallaahi kenn ci ndongoom mm-hmm. yi. fi tëkkale kenn yi. Mm-hmm. te bañ na dendale noflaayal ci seeti kemam. ku mel ni suñu maam ji. lele ni ci borom siyaar bi. Ibrahima Jaw gararar garmi gararar la. xalifa Cheikh la bu wér. tey gor su ba dem woyof ci saahir te diis baatin ca gaañi ko xam mm. ah borom di misqaari doomam loolu doy na ku xam yaayo ne leen waay ci maam Ibrahima Jaw man lii ma wax Cheikh Sukayri jaa ko wax du faral mm-hmm. ca lam ko doon laaj mu laaj ndigal la Cheikh mi ko noom mu xëy ne maam Ibra yow kat sëy nga neel dafa rëy Cheikh na Tijaan nee na yow eeyo nga lépp nga am yaayo waxtaan wa saydi sukay riija defoon kanamam di wax garaati ngëneel yi suñ tariqa bi am ne am na ñoo ku janoog ñoom ñaari bis ci cofeel fi jant fenkee ba so daa am texeeg boromam ne la nit ñu màggal borom siyaare bi yaayo te góor ga doon wax ne aka neexoon muy cagaaj moom maa Ibrahima Jaw ñu ko sang yi di nettali Seex Laaji Muhammad suñu xale te góor ga noon ak a neexoon muy ci ñooñ ci xelam. dëgg mu naan ko yow mii ca gaa nga coy li nu am dafa nii waay. ba léegi loola fi ne. xam ak nangooy li jafeñ. Mhm. gar mi ba doon na lépp. boole ngëneel ya mu am yaayo ku mel ni Seydi Habib ah. léegi ngëneel ya yor kum tànn jox la ko ñun daal goor si nañ sa kanam man de xaw ma kuy taalu beebu seex ma looye xal yaar farlul jullek mboolo bañ mu faat wiir daal suba ngoon saba yow say mere ca kaw ba dara solala waay waay ne ma nii seen loo xay ma ñëw ku baay seex dafal ma kuy taalu béeb seex ma looy xalaat fallu jullit mbooloo te bañ mu faat wiir daal suba ngoon sellal sabaat sa mbir ca kaw ba rasulallah ma faate woon si kar baat yu neex ya ak xañ gu neex ndekk fa toog moom bul ca palamiyeer ya ndax nga teew raxasal sa xol ndax sam xel di teew ngay xaw di yaanu te bul nelaw yow melal ni ngay gis rasulallah nga leen ma nii loo xayma ñëw muy jaan yi la baraada njool ne ma nii seen loxo yi ma ñëw saydi araasim baraada njool badar la ñu ko rob te faatuwul damaan di gaaya far ko suul mu fekki saabaay rasulallah sa sang ko bàyyi woon seex naa ma coy suñu ko bàyyi woon da gën a yéeme la mu waxoon kooku seex moo ko nandaloon ci mbooti maamam rasulallah xam nga sa maam ko nandaloon ci mbooti seex ak rasulallah baay abib seex ko nandaloon ci mbooti maamam rasulallah baay abib seex ko nandaloon moo ko nandaloon na lool ci mbooti maamam rasulallah waa Madina Seex la nuy béggee ci mbooti maamam rasulallah kon gaay ñu ngi yem fii lu neex du doy di leen ziare di leen balwaaq man lañ teg si wàllu waañ bi may jiite lépp waaw gis neen affaire yi nu mu demee kontaan neen nga ñëpp ñëw neen man foogoon naa ne sax affaire dina xaw a manqué mais dara manqué parce que ñëpp lekk neen ñu ñëw neen ñu ngi lekk ñu ngi ñu ngi toog ñu ngi xalaat lu ne ñu koy léegi moom li ñu leen war a mooy dañ leen di sant di leen gërëm di leen leen leen baal àq baal leen ñëpp àq man boole baal ñi waaw parce que lépp loo xamante ni gisoon nañ ko yaakaaroon nañ ko ci nit ñi fokk na ñëpp ñëw neen waaw parce que ñëpp dajee neen fi bi moo leen tax a jóg ñëw neen si siyaar neen si jàmm ñëw neen si jàmm ñam yi ñëpp du ñëpp lekk neen waaw lu ñu jaaxaloon moo doon ñam yi waaye ñam yi moom lépp mën na dara manqué wul waaw loolu moom waaw xam naa maa ngi sànni si xale yi góor yi waaw xale góor yi si biir dëkk bi nekk am whatsapp bi yëpp ak ñu ñu nekk si biir dëkk bi yëpp képp koo xam ne yaa ngi dëkk Médina Yoro rek ñu ngi lay ñu ngi lay sargal di la ziar di la baalaax ne ñëpp sonn neen si affaire yi ñëpp gis neen seen loxo gis neen seen taxawaay waaw ñëpp daal amul kii amul kee ñëpp gis neen seen taxawaay gis neen seen lépp rawatina groupe WhatsApp Médina Yoro boobu moom ñu ngi leen di tatagal di leen wax neen yokk góorgóorlu képp koo xam ne nii bëggoon na si dugg sax na dugg si whatsapp bi moom moo ñu gën a sigil si groupe Médina Yoro Tayirou bi ak groupe whatsapp bu njegeen bi bépp koo xam ne groupe whatsapp élément Irama Diaw la rek boobu moom ñu ngi lay tatagal waaw di la wax ñu ngi lay jégalu di la masawu si coono bi di yokk daal xam ne affaire yi léegi lépp man na waaw macha allah ñu daal moom ñam yi des na ni ñi lekk neen ba suur ñu kontaan neen yal na leen yàlla yóbbu ci jàmm waaw ñu képp koo xam ne ñëwoon nga ci jàmm yal na leen yàlla delloo ji yàlla buñ si am la ciy réccu yàlla buñ si am luñ ciy gis-gis waaw jazaakumullaahu xayran salaamaaleykum yéen bokk yëpp maa leen nuyu yéen ñëpp kenn koy trop ak santam ñu fi teew ñëpp gan góor ak bu jigéen ak ñëpp ndaw ak mag ñëpp laay seyaar di leen sant di leen gërëm di leen balu àq ndax lii métti na coono la ndax suba ba léegi kenn dalluwul ku ci ne la nga man ak lu nga man yëpp yang koy def ndax sant yalla ci xalé dekk bi xalé rew mi yëpp lay wax sax xalé yóbbu ndax ku ci la nga man ak la nga man yëpp def nga cotisation bi ag na jot na gaay yi ko jité jot nañ ci ñun ñi walu togg bi ñu ko ñun ci gor ndax suba ba lé kenn demul kër ndax togg gi rafet na baax na gan ñi lekk nañ ba sour naan nañ ba mandi yaa nañ dikk si jàmm ñibi ci jamm bàyyi ci jamm ya ñu ko téré ay at ci siyaare bi dañ ci wara taxaw tem ndax siyaare bi li waay man rek yenn ko man di leen ko am ndax ñëpp kontaan nañ muy góor ak jigéen gan ndaw mag ñëpp kontaan nañ ñu ci kaw ñu suuf ñëpp ku ci ne la nga man def ko cotisation yooyu yëpp jot nañ ci yëpp jot ñu ngi koy rafetlu it nag dégg ndax démb ba tey góor toogul jigéen toogul kenn toogul ñëpp a ngi def la nga mën a la nga mënu ndax ba ñuy jul soo léegi ñëpp a ngi ci fii toog ku ci ne la nga mën a la nga ci wàllu toog bi man ci laa bokk te soo ba léegi ñu ngi fi toog yi doy na man na rafet na neex na te am na nit am na njiiti nag ñi ngay ñaan yàlla yàlla maye fan ak bét ni nga ko teewee ne yàlla ko teewee di ween lu ko ëpp yàlla maye fan bu ñu liggéeyee ñu ngey gëw a ndaw yi nag ngeen gën góor góorgóorlu gën a góor ñu sant suñu kilifa yi ndax luñ am nañ ko kilifa suñu kilifa yi nañ ko leen gën a mee suñu kilifa yi ko may ñu ñooñu ko liggéeyal ndax siyaare bi may njëkk dégg naa ñu ne ay ganaar la njëkkoon ak i bëy léegi passé na ko danga daan wal cere di fa too cere danga daan rooti rootoo raakol bi lañ def ñuy ñëw guddi ak bëccëg dangay def ba sa xol diw gi lépp des ren ay nag yi nag la ay nag yi nag ca ganaar la daan doom donc bala ngaa ñaanat kenn nañ ñaan suñu waay jur ndax ñoo ñu ko liggéeyal ñoo ko liggéeyal ngeen jëri jëf li jëf yëpp gan mat ak ndaw ak ñi ci kaw ngi suuf ñëpp ndax gàmm gi nii lañ defoon gàmm gi kaw ak suuf ñëpp a def luñ mën ak luñ mën kon ñu ngi koy refelu yéen ñëpp ñaan yàlla lafal ñu cat ak ndox lafal ñu cat ak ndox musal ñu ci làmmee ñuy dox ak yu amee tànk yëpp maye fan ak wér ñun wasalaam aousubilah bi na cheytaan rajim bisimilah rahmaan rahim ginnaaw bi sant ci li ci li euh, ngi sant suñu ñaari wajur bu baax a baax a baax di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ko ku wér di sant euh, mbooleem doomu aadama bi nga xamante bàyyi na ay yitteem euh, dagg lépp lu mu yoroon ñëw ndax siyaare bi ñëw siyaare sunu maam El Hadj Ibrahima Diaw Sall ñu def ngir lan ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ngir sàkku ci lu baax sàkku ci tamit suñu fajoo xaajoo adduna ak laaxira kon loolu jaadu nañu sant bépp doomu aadama xam ne ñëw nga fi tey pour ndax siyaare bi te jëm yàlla rek indi la ak suñu maam Ibrahima Ndiob loolu dëgg yàlla dañ ci santaan bu baax a baax a baax leen ci gërëm di ko rafetlu bu baax a baax di ñaanal nag way judi way judi jiitu ba sax rawatina di commencé ci suñu maam Ibrahima Ndiob di ko ñaanal yàlla suñu borom jéggal ko basileer moom da ci kawam te yàlla suñu borom xaaree ko àjjana jéggal mboolemu doomu aadama bu ne ci biir suuf di ko ñaanal bépp julli rek waaw ginnaaw bu ñu leen siyaare bu baax a baax a baax jaajëfal mbokk yi yëpp waaw am nañu kontante lool ci bis bi nu mu demee nii mu demee wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe suñu njort xanaa di ñaan yàlla rek lépp luñ fi ñaan yàlla suñu borom nangul ñu ko barke Seydina Mohamed yàlla suñu borom def ko muy fajukaay xaaju yàlla suñu borom saafara jàngoro yëpp di ñaax mboolem mu doomu aadama nga xam ne ñëw nga fi nag ah di la ñaanal yàlla nga dellu ci jàmm ak salaam ba nga yegg fa nga jëm bàyyi ñi fi nekk ñoom ñu jàmm ak salaam ñu teewee ko ay déwén bari bëri bëri bëri at mu gën a ñëw rek at mu ñëw rek ñu gën ko man mu dàqal ñu at yi ñu passé ginnaaw loolu ñu ñëw ci siyaare bi nag ndax tey jii am nañ fi sunu euh, teg nañ fi sunu première pierre muy résidence bi ñu tuddee sunu maam Alaaji Ibrahima Diop Sall a ah, di ci ñaax mbokki jullit yi rawatina mbokki taalib yi aju ci kër gi ak fu ñu ba nekk ci àdduna bi nañu jóg fa yéene takku ndax kër gi këru ñëpp la du këru kenn du këru bàyyi kenn këru maam El Hadj Ibrahima Diaw Sall la te comme ni ñu ko waxee sànq rek maam El Hadj Ibrahima Diaw Sall bëri nañu fi ñëw di faj seen i sox di ñaan seen i aajo te seen soxla muy faju ci bàtteem kon nag bu ñu jëmale lu mel ni këram incha allah bëgg nañu fay nekk ak lu mu mën a doon bon ñu lenn ak lu mën a am ci kaw suuf mooy cent franc la commencé cent ba un million ñu ngi koy ñaan mu participer ci liggéey bi ndax kër nag ay caaxaan tabaxu ko ndax liggéey bi dafa am solo lool kon nag ñu ngi ciy ñaax bépp jullit rawatina taalib yi aju ci kër sunu maam El Hadj Ibrahima Diop Sall ñu ñëw ci bokk ci liggéey bi waaw xamuñ ci benn dërëm xamuñ ci benn dërëm waaw loolu moom daañu ci sawar a bu baax a baax a baax ndax euh, ñun donte na fekke wuñu sunu dund maam El Hadj Ibrahima Diop Sall waaye li nga xam ne moom lañ jot dégg sunu mag ñu baax ñi njëkk la ñëw ko ak borom xam-xam yi euh, amoon na jikko yu rafet rafet rafet jikko yu mat mat roy amoon jikko yu baax jikko yoo xam ne bu ci ndaw yi roye tay inshallah dañ yegg fu ñu jëm te du ñu am galan koor jikko yi rawat na moy yar yar yar bu ma mat sëkk sëkk maam ibrahima jow kooku lu ko soxalon la wala ko jàng uti xam-xam bu baax a baax nangoo liggéey nangoo jaamu yalla te moytundiku lépp la nga xamanteni safan ba la ñi tay gis rawat na ay taalibam du ma wax ay ay ay njabootam waaye képp nga xam ne yaakaar nga ko ak foo mën a nekk wax dëgg yàlla war nga ko roy ci jikko baax yooyu ndax jikko nga xamante ni jikko la jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu képp ku bëgg lu baax rek ak foo mën a rek war nga ci war nga ko ñëw xeñtu ndax euh, yaakaar nañ ne ku ci tënku ci ay ay ndigalam bàyyi ay tëram incha allah defe naa doo ci am dara loo rek rëcc neex yàlla loolu daal waaw siyaare bi de déglu nañ ci borom xam-xam yi tamit comme ni ma la ko waxee sànq comme ñun euh, ginnaawam ginnaaw bi siyaare bi commencé la ñuy dugg ci la ñu gën a àddina waaye am na ñoo xam 1947 am na ñoo xam 1946. waaw appel bi bi ci jiitu mooy ñu tënku ci ndigalam ñu tënku ci ay ndigalam di bàyyi ay teram ay ndigalam dara jiitu ci góorgóorlu ci suñu jaamu yàlla góorgóorlu sunu liggéey. tënku ci ay ndigalam lépp mooy tënku ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek loolu la waaye defe naa ne daal comme ni ma ko waxee rek nañu tënku ci ay ndigalam ay ndigalam nag rawatina mooy dem jàngi dem liggéeyi dem góorgóorlu ji waaw fa yéene nag euh, xar suñu tànk tuba ci lépp loo xam ne rek ay train la ñu moytu ko te taxaw ci ay ndigal yu baax lépp waaw ndigal yu baax moom bokk na ci mooy nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla nangoo topp ndigalu way jur yi ndigalu kilifa yi loolu am am solo la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah waaw xale yi nga xamante ne tamit xale yi nga xamante ni xëy na fekke wuñu wuñu bis bi bis bi nga xamante ne ci lañ doon teg suñu première pierre bi ah, ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi dont ne bëggoon nañu ñëw te yàlla dogalu ko loolu dañ leen koy nangul ndax li ah, ñuy wax jaam moom pexe la mooy yàlla suñu borom mooy dogal képp nga xam ne yaa ngi déglu appel bi ñuy lancé ak foo mën nekk ci àdduna bi ñoo ngi lay ñaan nga jàpp yàlla tax ndax liggéey bi sumb nañ ko liggéey bu am am solo la liggéey bi këru sëñ maam El Hadj Ibrahima Diop du këru bàyyi kenn képp nga xam ne taalibe nga wala nga sopp maam El Hadj Ibrahima Diop ak foo ma nekk ñu ngi lay woo ci liggéey bi ak euh, noo ko mënee ci doole ci kàttan ci sa poos sa ñaq waaw xeebuñu lenn yéemuñu lenn tamit nag waaw kon ñu tënk kàddu yi foofu di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi ba déwén a jàmm incha allah